la ilaha illallah eh mbay guy gi ñëw na guy gi yeew la indi yeew mbay guy gi yeew la indi ah Adama xoolal lii ay mbay guy gi mbay guy gi waaye waay mbay guy gi waay waay lii doon jeer waay waa Medina génn nañu waay doomu bool baa ngi noonu waay kenn Mouhamed Boury TV sa jaage bi neex na waay macha allah ma doon faale sax ah lii neex na waay ah, waay sànni ma ko ci benn mbalit sànni ma ko sànni ma ko boobu sànni ma booba taxawal nii rek la fa da bawol doomu Medina moo war a laal ak Zarko le 27 waa ren di DKR production moo ko organisé fële ca stade Diop Iba Mar bu mujj Mame Balla la mujjee am ci ndam lu ca stade Diop Iba Mar waaye tey na beneen coppitiku ndey guy gi wane na ni bëgg na bis bi Adama ma ngay way ndeysaan Kumba jooylo ndeysaan Kumba jooylo waaw waaw ndeysaan ndeysaan mbay mbay guy gi waaye ndeysaan mbay guy gi mbay guy gi ndeysaan mbay guy gi ndeysaan ma nga noonu nee na tabu leen nee na tabu leen rek ndeysaan Alléluia

jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di rafetlu fii yi nga xamante ne ñëw nañ fi tey muy Medina jëm ci bis bu rëy bis bu mag bis boo xamante ne Sénégal gépp ñu ngi koy xaar rawatina ak lu muy mbay guy gi ak Zarko waa rent DKR production organisé ko vingt 27 bii ñu jëm ñoom ñaar ku ci nekk dégg nga li nga xamante ne def nañ ko ci ci wàllu communication mbay guy gi wax na Zarko wax mbay guy gi bi paase bi ñu fiy ñëw riita mbal nga fi indi tey nga indi wàccal wàccal ci suuf ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi wax ñu nan nga waaje sa diggante ak Zarko ak lan nga ci fas yéene indil Medina ndam bi nga xamante ne ñu ngi koy xaar ñu ngi nuyu mbay guy waa asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp ku ne sa tur ak sa sant maa ngi nuyu waa Medina la nañ ma taxaw nañ ma képp ku deretu Medina di daw sa yaram maa ngi lay bége di la siyaar di la ñaanal jàmm di lay wax gis naa ni ma taxawoo maa ngi nuyu képp koo xam ne it deretu bawal bawal mu ngi daw sa yaram maa ngi lay bége di la siyaar di la ñaanal jàmm man Medina ak bawal ñoo ma seq doomu Medina la ak doomu bawal maa ngi wax ginnaaw ba ma sant yàlla julli ci yónent bi maa ngi gërëm sama ñaari waajur jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall Lamb jërëjëf sëriñ Tafa Diouf sama Serigne borom boo ak Njaañ jërëjëf Serigne Tafa Diouf borom boo ak maa ngi ñaan yàlla sunu borom bàyyi fi sama yaay ba fekkee sama njëriñ ñi génn àdduna sama papa maa ngi ñaanal yàlla sunu borom oyofal suuf ci kawam ak mboolem jullit kum fa fekk. ñu ngi ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér ñu ngi ñaanal xalifa Tiwaawan mu yàgg fi lool te wér xalifa Ndiassane ak xalifa ñaseen bi ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm xalifa laayan kilifa diine bu ne dëkk bi ñu ngi lay ñaanal jàmm sunu mbokku chrétien yi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu waa Medina fi ma nekk maa ngi nuyu sama doomi nday yi fi teew yëpp Cheikh Thiaw sama doomu ndey maa ngi koy ziar di ko ñaanal jàmm kii lépp moom la bu affaire yi ba tey jii lépp moom la moom Mor Baye Fall sama doomu ndey ñaar ñii ma seq ah ak Baye Laat sama doomu ndey sama xarit ñoom xaadim ak sama doomu ndey maa ngi nuyu ñoom Dame Cissé maa ngi nuyu maam Góor Samb jàppale na ma taxaw na ma ak Assane Ndeye Sarr sama grand sama xarit ak mbay maa ngi koy bëggee bu baax di ko ñaanal jàmm sama papa ministre Seydou Gueye maa ngi koy bëggee bu baax di ko ñaanal jàmm maa ngi nuyu Baye Laat sama doomu ndey sama xarit sama mbokku mbër yi fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu ku ne sa tur sa sant di nuyu nag sama mag Tapha ak sama mag Moussa Dioum maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm képp ku ma tudd rek dama laa fàtte maa ngi nuyu waa Ngewel fii ma jàkkaarloot waa Ngewel ñi ma jàkkaarloot maa leen di nuyu baax di nuyu waa Rue 13 Médina 1 ba 45 maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. tey Rita Mbale nga indi woon wàccal. wàcc ci suuf lan la fecc bi bi communication. maa ngi nuyu sama mag sëñ Modou Ngom bi sama mag moo Cheikh mu ndaw sama mag yi sama mag yi ak sama doom sama turandoo mbay guy gi maa ngi leen di nuyu wàccal ci suuf bi mooy wàcce ci suuf rek. jàpp ko yëkkati dóor ci suuf mu jeex point déggoo ma de Zarko laay bëreet arbitre soufflé ci kàttanu yàlla li ma doon def amul leen lu ma ciy saase bu arbitre soufflé maa ngi ci kawam te bu ma ko jàppee dama koy daan ci kàttanu yàlla incha allahu rabi fu ma ko jàpp lamb jeex mais ni ñu déggee ngay wax nga doomu géej Grand Yoff non du question xeeb du question dara champion la def na li mu war a def ci la man xale laa damaa ne ci yoon mi dinaa topp sama ginnaaw ak waa Bawol jëpp topp sama ginnaaw di ma ñaanal lii wax ji mooy ma ñëw wane preuve jàpp ko duma ko daan ko te ci kàttanu yàlla noonu lay demee incha allah déggoo li ma la bu rëppee ma dóor ko mu daanu ci kàttanu yàlla incha allah maa ngi nuyu Moussa Djili Fall sama doomu ndey sama xarit Moussa Djili Fall Moussa Djili Fall yére bu ma sol assemblée yi may sol moo ma koy jëndal ma koy sol Mor Talla Fall Mor Talla Fall maa ngi koy bëgge bu baax di ko ñaanal jàmm bu baax. mbay guy gi waaw Zarko dafa ni guy gi ay supporter lay nax mm-hmm. waaye bis bu ñu tëjee ci barrière yi man ak moom bu ma ne ko yem ma fii mu yem ma foofu da ngay yem Zarko foofu waxut dëgg loolu muy wax amut Zarko bu arbitre soufflé laa la wax ci kattanu yàlla du def dara arbitre day soufflé mu taxaw ma jàpp ko daan ko loolu rek laa am lu ma koy wax yàlla na ko yàlla sunu borom may wér may mu wér fan laa ko teg xale laa damaa ne ci yoon ay kilifa topp sama ginnaaw maa ngi nuyu it sama papa Abdou Aziz Alé Ndiaye ginaaw yàlla bu combat bi taxawee tey moom la moo jël avance bi ci loxoom woo ma ba ma ñëw mu jox ma ko sama papa Abdou Aziz Ndiaye ak sama papa Bada Dione ak sama papa Dieye Sène sama papa Dieye Sène sama papa Daouda Sarr ñoom ñëpp maa leen di béggee man ay kilifa topp sama ginnaaw di ma jàppale tiituma dara Abdou Tall Abdou bu xarañ Lo maa ngi koy bégge bu baax ko ñaanal jàmm sama doomu ndey sama xarit dégg nga jarbaatu Dieye Abdou seen maa ngi koy bëgge bu baax di ko ñaanal jàmm sama xarit ak Fallou El Malick Sandaga maa ngi bëgge ñëpp Petal Sène Babacar bu Modou Lama Babacar bu Modou Lama sama doomu nday sama xarit moor Diouf maa ngi koy bëgge bu baax ak Modou Lama Sène mag Dame Cissé Modou Fall ñoom Omar Sos maa Lambaay maa Lambaay maa ngi koy bëgge bu di ko ñaanal jàmm bu baax ak ñoom Modou Waly ak ñoom Jaraaf waa Lamantifi maa ngi bëgge ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp jàmm il faut ma sant li mu la jiitoo ci làmb gëj a moo tax nga yaakaar ni yéen ñaar bu ngeen laalee liy seet luy tooy ci yow lay jugee dama ko taak dama ko taak fii ci Blaise Diagne bi ba marché Tilène dama ko topp taak ko ba marché Tilène mu yor paaka ma tëbal ko ba marché Tilène bu dee amul yàlla bu ma fanaan tey barki Seydina Mouhamed Sarko bu arbitre suuflee laa la dama koy duma daan ko non da ngeen a maye distance yéen ñaar gars yi ngeen may da ngeen a maye distance yéen ñaar ku ci nekk may na moroomam lu mat vingt nekk naan ñëwal ñëwal est-ce que bu arbitre ne prime du ngeen defaat loolu ñaari yoon la am ñett mën naaw ci kawam mu daw. dégg nga tapet la. arbitre bu suulee barke Serigne Mbamba bu taxawee ma duma ko daan ko man xale laa ci kattanu yàlla dafa am ñu topp sama ginnaaw sama papa Samba Ndour borom Touba maa ngi koy bëggee bu baax a baax moo ma jox jaan ji ne ma wékkoo ko karamba daa soxo anden ko borom jinne yi jàppal tànk yi point. waaw jox Alioune baat ak tontu la. ñu jox la ci xale bi nga xam ne nii moom mooy Mame Balla. baat ak tontu la. waaye kii di Zarko. day boo xam ne képp ku bokk duñ nelaw est ce que yaa ngi sóoraale nii. waa sous-estimé nga bëgg koo jëriñ naan da koy faram samay mbokk a ngi nelaw ba biddanti nelaw ba yaandoor. namuñu dara xalaatuñ dara. li ñuy xalaat xam nañ ne ki ñu àndal la am na doole mën naa bëre am na fit. Zarko du duma kenn bopp. bopp bu rëy la yor amut karaw mënuma duma du dara du daan du niil du def dara arbitre day soufflé ci kàttanu yàlla yàlla sunu borom nag moo yor ndam def nañ lépp li ñu war a def mais ci kàttanu yàlla bu arbitre suble naa toog ci kawam ci kàttanu yàlla barke seexul xatim bu ma ko jàppee di nga xam ne du ma moroomam xale mag am na fu ne doom Zarko fu ne am na fa doom awmal te amut jabar am na fu ne doom te amut jabar awmal xool eh man li jëntiwuma kuy li li may bëgg wax laay wax li ma bëgg ta wax waxuma ko dégg am na fu ne doom bu ma ko jàppee dama koy duma daan ko ci kattanu yàlla maa ngi nuyu sama waa dëkk waa reefan boox maa ngi nuyu ndereb waa ndereb waa njarno waa waa reefan jolof fudaay njarno fépp fépp fu bawol bawol ne maa ngi lay bëgge maa ngi bëgge ngi bëgge déglu ma eh maa ngi bëgge fitir maire de reefan fitir maire de reefan mu ngi nii taxaw ba da ñing découragé ñu de barke Serigne Bamba mairie Réfane di nga ko jël téye ko liggéeyal ñu li ñu bëgg a liggéeyal maa ngi bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm maa ngi nuyu sama rakk yi ne fii sama doom baay sama papa Abdou Aziz Ndiaye billet yi damaa bëgg mu jën ko man ay xale topp sama ginnaaw. sama combat bee jàll sama reliquat sama combat bee jàll sama reliquat bépp dama ko faye ay billets. na ma dimbali combat bi mu jëndal ma billets yu bëri moo sama papa Seydou nañ ma jëndal billets yi ak sama papa Daouda Sarr ma feesal stade bi ba mu fees del ñëw fecc fecc bi ak jéey sama papa tuus tuus bi. jàpp waa ji daan ko ci kattanu yàlla mbaaxu Serigne Touba. internet yi hmm? maa ngi koy ñaanal bébé Diène bébé Diène bébé caabi da ko féete ginnaaw ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom tegil yàlla sunu borom génne ko ci kattanu yàlla balaa mat une semaine yàlla na ko yàlla sunu borom génne ci barke Seydina Muhammad sunu waay la sunu xarit la sunu rakk la bu dee ñaari fan sax ñoo ko magee booy bu baax la léeg nag tolof tolof du ñàkk mais ñu ngi ñaanal yàlla sunu borom jénne ko Bébé Diène ci barke Seydina Mohamed. tontu question. question bi lan la. ma ni mbokk internet yi nee nañu. Uh-huh. ñi nga daan ñëpp da nga leen man sama doo man sama doole laa yor. arbitre souffle mën na la népp jàpp la. bu ma tolloo ci ku may wan bëre. bu ma tolloo ci ku may wan bëre dinaa la wan bëre daan la fi ma toll nii tollu ma fu may wane ay bëre. loolu ngay imposer doole boo ko imposer sarko doo ci am rek maa ngi nuyu sama coach su Boja moo ma téye ci camp bi di ma liggéey loolu metti gis nga li ma toll yow bi nga ma gisee tiitoo ne yow kii nu mu demee nii dama jeex tàkk matoon naa cent quinze kilos fi mu ne nii matuma cent kilo xam li ma la maa ngi nuyu sama coach su Eli Soukay ak Wila Sène déggoo li mala la bu arbitre soufflé dama bu ne pir damay ñaan li may ñaan dox ci ko jàpp ko bët ko yenn ko ba taxaw dóor ko ci suuf dem sama yoon. poye lan nga koy ñaan Zarko koy ñaan ngir yàlla ngir yàlla jëmi sëriñ Touba bul daw bul areer. taxawal dëggal sa bopp. barke Seexul Xadim ma yoot ma ma ma yoot ko jàpp ko daan ko. ci kàtt bu xeexee ma dóor ko mu dee nga naa ma lan. bu xeexee bu xeexee bu xeexee ma dóor ko mu daanu. bu bëree ma jàpp ko yenn ko ba taxaw dóor ko ci suuf. waaw. maa ngi nuyu Basirou sama sëriñ sama xarit. ri 41 maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax Basirou. maa ngi nuyu Baye Mbacke Mboro. berserie xaalim Rasool. dégg nga ay affaire mbay mi machine mbay lay jaay sama xarit sama doomu nday Baye Mbacke borom Mboro ak Abdou Mboro. dama dem mu yëkkati deux cent mille may ma ko dégg nga te nee ma balaa combat na dinaa dugalaat dara nit nag da nga ñi lay jàppale da nga leen di gërëm Amidou Sandaga am am Sandaga maa ngi koy bëgge bu baax maa ngi nuyu Maas centenaire sama doomu ndey sama xarit Maas borom saaki Malick mécanicien liiru liiru borom mëtëy ak Doro sama doomu ndey Doro Doro Sall maa ngi koy bëgge baax ak Malick mécanicien képp koo xam ne fii yaa ngi fi ne dawal mëta maa ngi lay bëgge Papis borom le mbote Papis borom le mbote chaque jour kilo yàpp la may jox chaque jour dama lekk yàpp ba médecin bi ne ma bu lekkati yàpp dañ ma tere yàpp fi mu nii barke Serigne Saliou dañ ma tere yàpp barke Alxuraan dañ ma ne yàpp bu ko lekkati dañ ma ko tere waa Medina aw ma seen fay gis naa niñ ma taxawoo Medina moom aw ma aw ma seen fay yàlla mi am seen fay maa ngi nuyu ñëpp ñoom Sidi ñoom Kolaga ñoom ñoo ay bëggee ñëpp sama boy rii tërës maa ngi bëggee ñëpp képp kuy doomu Medina maa ngi lay bëggee di la ñaanal jàmm di nuyu maam góor sam bu baax a baax a baax Assane Ndeye maa ngi lay bége bu baax di la ñaanal jàmm bàyyi laat sama xarit sama doomu nday maa ngi bége Mor Baye Fall sama doomu nday ak Cheikh Thiaw sama mag yi ñoom gas maa ngi bége ñëpp maa ngi nuyu ñoom ala sama gaay yi bége naa ñëpp ñaanal ñëpp jàmm presse bi maa ngi nuyu ñëpp ñoom pël sama gaay yëpp maa leen di bége di la ñaanal jàmm ak sanu grand baj Petersen maa ngi bége ñëpp maa ngi bége kii Mor sa mag bi euh, Pape koy bëggee bu baax may na ma xaalis bu bëree bëree bëri maa ngi bëggee Ndiaye Bamba bu baax a baax sama doomu nday sama xarit Cissé Thiam sama papa borom kaw la xaru laadum la ma may Baye Mbacke Mboro nag nee na ma boo daanee ba pare ma mayaat la beneen xaru laadum muy ñaar le 27 février laay bëree maak Sarko Ajuma Diallo yaayam tudd maam Marème Ba. est-ce que la ñuy bëree stade stade Iba Mar la ñuy bëree maa ngi bii di ñëw dimanche suba bi bu delsee la ñuy bëree fii i Iba Mar Diop Medina gépp nañ gën jarul nag yéen waa Grand Yoff nag ñiy supporter Sarko jarul ngeen di ñëw booy di leen fi dàq. Grand Yoff dafa sori toog leen seen kër seen mbër ñëw ñu duma ko daan ko mu ñibbi ci jàmm lu ko mooy. booy dinañ leen jàpp duma leen fi gaañ leen ngeen andil ñooy problème toog leen rek stade bi dinaa ko fees del maa ngi nuyu presse bépp maa ngi nuyu Alain ak Pape Sarr ak Jimbo maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di